dongo yi seenu liggéey ak ñu war a jaar dana yomb waaye nag kuy seetal da ngay njëkkee ci sa bopp kon nañ njëkkee ci suñu bopp bu ñu génnee dongo yi man ñoo roy waaye ministre tëb rek di ko kër di taseeg dongo yi ci mbedd mi di leen fitnaal loolu xel nangu ko tëdd boobaa lislaam dañuy jàmm kon nag nañu gën a góorgóorlu ndax sëriñ bi lu baax rek la bëgg te deful lu may fàttali li alquran fàttali damay wax ne toujours sëriñ Touba moom boo koy seet te xoolal alquran ak sunna lu ci waroon moom rek sëriñ bi nekku ci kon sëriñ bi foofu rek manees na ko feeseer kon yàlla ñu yàlla dimbali defal ñun dimbal ak tawfiix